asubillahi mina sheytaan rajim mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen jégalu di leen badaax di yëkkati suñuy kàddu jëmale ko ci li nga xamante ni mooy liggéeyu Cheikh Souhaïbou ndax xam nañ ne weeru koor wi ci la wuy ji woon boromam ñu ngi siyaare suñu kilifa yi nga xamante bi ñoo nekk si suñu bunt ci Sëriñ Tuubaa tàmbalee nuyoo bi ci Seex Ahmadu Mbàkke di xalifaab Sëriñ Suhaybu waaye teg ca Sëriñ Abdou Samad moom mi nga xamante bi mooy rakkam kàddu yii nag ñu yëkëti ñu ko yëkëté ci ndigalu sëriñ Abdou Samad ngir mom dara ñoro ko lut nit ñi xam kan moy suñu son bu rek lool do nga yité suñu son bi sax xam ko mom yombut waye fi jamono toll lenn lo ci xam wax ko ba nit ñi xam ko da ci am solo nekkan jëmm joo xamante bi te loolu la tax ñu mën cee wax mooy yàlla dafa dogal dañ ciy gëstu gëstu gi ñu koy gëstu nag moo tax ñu xam ne suñu soñ nekkatul ku ndaw ndax boo xoolee bari na lu mu indi dëxañ ko ci ay wax te jamono ji la ko nit ñi soxla woon maanaam ci wàllu set dañ ci indi ay tomb yoo xamante bi moom moo ko wax boo demee ci xootu ay nit da nga ko ci fekk waaye da ngay gis ne nit ñi dañ koy liir di ko fàtte dañ koy liir te duñ dégg wax ji maanaay wax jël lam ca jublu ndax dafa am wax yoo xamante ni buñ la ko leerul doo xam lu mu jubloo wax ci loola da gis sëñ son bu li mu wax ci faj fi mu toll boo xoolee ba mu ko waxee ak léegi tiiraa ba ak léegi kenn xamul ñaata at la waaye jamono jii boo xoolee daa mel ne nit ñi ñu ngi koy door xam ba di ko moytu ko mooy lan mooy naan ci ndab di ca nooy mm-hmm. naan ci ndab di ca nooy xoolal danse boobu ci nit naan ci ndab di nooy suñu son bi mu ko waxee léegi nag kenn xamul ñaata at loolu lan lay indi ci doomu aadama day tax nit ki du am oxygène ki nga xamante bii day naan ci ndab di ca nooy day tax du am oxygène te day tax bu tawatee ca loolee saafara ko day jafe loolu kon sëñ Sohaybu aaye woon nañ ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg yal na ko ñëw na ci ñun ak taxaw di naan ci li nga xamante bi mooy lim aaye woon nee na euh, di nuyu nit dëpp sëb jë di ko diri tey fii jamono toll gis nga ni ñu indee sili maanaam sans maanaam wàllu civilisation bi yi nga xam ne moom la ñuy xewal nit ñi pour ñu raxasoo ka fonk set geeg la ci aju sëriñ son bu loolu ba mu ko ayeglee kenn xamu kañ la waaw mooy di nuyoo nit di diri sa jë wala sa bakkan mën naa indi ca ka nga xam ni moom nga seqal nuyoo ba fii jamono toll rek nga gis ne taalib yi ni ñu japp loxo serigne bi nuyu ko diri sa jébi ak sa bakkan bi ak yoy yep man na bayyi dara ca loxo ba lo xamante ni mën na jural dara bu fekkee ne yow set ga wara nek ci yow neku ci yow serigne soye man koy doon ayé te lolou lepp ci ak civilisation la moy gi rek day andi jangoro man na andi jangoro ci nit ka ñun ci rag sa ndeggul tankal ndi jor manam nga rag sa ndeggul tank ak sa loxo ndi jor comme ndëggu tànk mooy xolu tànk bi mooy comme tànk ndi jël boo ko jëlee nga raggoog sa loxo ndi joor gis nga loole loolee sëñ son bu mu ko doon aaye boo ko xoolee ci wàllu xel rek xel warta xalaat loolu maanaam loxo bi nga xam ni moom ngay jëfandikoo ngay koy warta xalaat loolu maanaam loxo bi nga xam ni moom ngay jëfandikoo ngay koy raggee sa tànk loole sëñ son moom cay wax te boo xoolee jamono ji ci programme yoy rek danaka mo xew fu mu waaw kon nga gis ne ak dag garab gu toy waaw ni melen ci gantax nga xamne ne nem bare ndariñ solo simu aman xam gi mu ko xaman motax mu ne ëpp na dag gantax gu toy rawatina na dem gis nga nim ciblé yi déem ndax dem lu tax lola moy ndariñ la ca nek kon mom xamal na ndariñ dem, limi muy kon sëñ Sohabu nek na ko xamanteni bi ku bayyi won xel garab la waye xaman ko lol xolal limu waxat mune lan nen jeun ak soow ëpp na lek ci ben jotaay. allah nen jeun soow nonu mu ko waxe buñ ko gëna leral ci mu gëna a gudd ci waxtaan bi moy lan moy ki koy jëfëndiko te mënu ko ñak lek lu ci nek na mat waxtu nga sogal lekkat la ca dess waye bu fekkene da nga jël jeun nen soow nga boole ko lépp ci benn waxtu lekk ko loolu day indi tawat te loolu boroom xam-xam yépp màcc nañ ci loolu te loolu sëñ Souhaïbou wax na ko bu yàgg yàgg yàgg nit ñi nag léegi lañ ko door a xam sëñ Souhaïbou bu ñëw na ci li nga xam xamante maanaam naan ndoxum guddi mu sedd kenn ku nekk ndox mu guddi mu sedd nga di ko naan tawat dong wu lay indi ci yaram amul leneen soxna waaye bul yëg ne mar nga lool wala xiif nga lool ngay ànd kon gis nga waxi nit jooju nga xam ne ci xam-xam la ko teg ci wàllu li nga xam ni mooy euh, xam xam bu ànd ak euh, a am paj mu ne tam euh, gis nga taxaw di naan bi danger bi ci nekk fu ni kii taxaw di naan saa bu taxawee naan bu noppee rek du toog lu yàgg da gis ne day dem ci wanag ba ndax day yàkkamtee dem wanag ndax boobaa la war a duy ca biir ba lépp matewut kon da ngay gis ne raakoolub direct la am ngir taxawaay ba te loolu day indi ak wéradi kon gis nga ko sëriñ Sohaybu ñëw na ci ëf ëf ëf maanaam ak sa gémmiñ ci ñaw ci am ñam di ca lekk kenn ku ne xam na ne loolu wóor waaw bu ñu ko tegee ci wàllu xel rek da ngay gis ne wóor ndax bàyyil xel ne aw ñam bu fekkee da nga amee tawat yow tey jii lii ñuy takk masque yi ñuy takk tey jii sëriñ Sohaybu ba mu ko waxee léegi kenn xamul kenn la ana lolu moy lan moy ngelaw lolu ngay ëf ci ñam wi diko jëfëndiko lolé loolee ma ngi la koy bañal ngir wuur ba xam yow am nga tawdum mbir xam na dañuy daldi gatt rek ndax lu ñëpp kenn ku nekk sa euh, manam li olaf di wax rek euh, manam lu ñëpp bokku da ngay xam no ci doxé waye mën na gëna yatu waye nak ñi ñu ngi baluwaq di yemale fofu suñu kaddu di ñaanal euh, sëriñ Mountakha suñu borom yàggal ko fi te andu ko wër di jaajëfal sëñ Abdou Samad bu baax a baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.